ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax. mën nañu xam réellement comment ça ça s'est passé votre problème avec euh, salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp tout d'abord euh, man la Babacar Sy di président ASC Disso dëkk fii au niveau de sant yàlla kër Alaaji Paate bon ñun dañu am benn problème fii au niveau de Alaaji Paate muy pavage yi ngeen di xam ni muy pavage yi ngeen di xamante ni moom ngeen di seen nii donc euh, monsieur le maire Bilal Diatta moo ko fi def. donc ci ci ci loo xamante ni jaarul ci norme yi mu war a jaar parce que ñun bañuñu pavage parce que ku sañoon tëli jaar si sa buntu kër mais dafa am lu ko jiitu muy canalisation te boo xoolee ñun fii au niveau de El Hadj Pat depuis depuis depuis lu yàgg ba tey ñu ngi dëkk ci ndox mi te déjà ñu ngi doon dox ci projet 2 bi mu war a dugg ci ci 2025 donc ñun suñu problème ak Bilal Diatta mooy moom projet 2 bi lan projet projet 2 bi maanaam day consulter tali bi nii lay lay jël day day am canalisation comme ni ñu ko defee ak unité trois ak unité 4 mu dem ba Baye Niass muy loo xamante ni day am canalisation pour ñun ñu génne ci ndox parce que ñun fii tout le temps dañuy am problème ndox déjà ñun ci ndox mi sax lañu dëkk waaw déjà ñun ci ndox mi lañ dëkk donc ñun suñu problème ak Bilal Diatta mooy lan lay yàkkamti ñëw di jël pavage yi di ko teg sans canalisation te projet 2 bi nekk en donc ñu dañuy lancer un appel solennel à monsieur le président Diomaye ak le premier ministre Ousmane Sonko mu jàppale ñu ci projet de bi ñu dugg ñun bëgguñu pavage yi nga xamante ne Bilal Diatta moom la ñu fiy defalal déjà c'est quelqu'un bu nga xamante ne bi depuis mu nekk Kër Massar ba léegi ci ay jafe-jafe rek la ñu dugal fii au niveau de santé yàlla de am nañ fi problème mu case de santé am bon volonté boo xamante ni dafa jël case de santé bi équipé ko plus de millions def ko mu ni dee àll mi loolu du ubbi. lan loolu. Euh, des des raisons de politique. ñoom ñaata idéologie politique ñoo bokkul. ñoo bokkul te kook c'est un bon volontaire rek da ko gis ni xam ni fii waa waa waa Alaaji soxla nañ ko mu def ko fi depuis boobu léegi ça fait sept mois. que localité mi ngi koy fay. matériel yaay yëpp ñu ci mu ni dee loolu duub bi. donc loolu gàcce la. loolu gàcce la ah ci un maire bu toll ni comme Bilal. donc ñun daal li ñuy wax mooy ñu ngi lancé appel solennel à monsieur le président Diomaye di ko wax Ousmane Sonko que ni ñun waa Alaaji Paate projet 2 bi la ñu bëgg mu dugg ci fii kër Alaaji Paate parce que loolu rek moom mën a am ñun ñu am jàmm. valeur projet bi ñaata mën nañ xam ñaata la toll. bon moom moom valeur projet moom ci li mu estimé moom ci li mu wax. déjà wax na ñetti wax. première première montant bi mu expliqué wax na ay quatre cent ay quelques million deuxième bi ma dégg keroog bi ñu demee au niveau du sous-préfet nee na fa un milliard huit cent. 1 milliard 800 ci pavé. ci pavage pavage des na beneen parce que demand na ci ay vidéo virale yu muy wane taxaw ni moom def na fi projet ci Alaaji Paate eh, ay pavage yu 2 milliards. donc ay chiffres yu différents te déjà projet bi moom xëy na projet boppam la mais du projet commune bi. parce que li tax du projet commune déjà conseil yi sax ils n'ont pas au courant yëguñu sax ni pavage bi moom bi ngi koy def donc kon moom yaa a quelque chose dedans ñun loolu lañu loolu lañu gis donc lii état daf ko war a yëg. su ma su ma la déggee sa wax Alaaji Pathé Guèye lii moom mooy 2 milliards. lii mooy 2 milliards lii mu nar a def fii pavage yi ba pharmacie Baye Niass moom mooy deux milliards yi mu yi mu njëkk a wax wala 1 milliard 800. asalaamaaleykum d' abord man maa ngi tudd Khadika dëkk fii ci ak kër Alaaji Pathé nekk juste à l' entrée. mën nañu xam yan jafe-jafe ngeen waa ñun nag euh, jafe-jafe yi ñuy dund fii dans un premier temps damay wax ne xam nga kilifa boo ñëwee ci dëkk dafa am noo xamante ne nii noonu nga war a jëflante ak ñoom ndax lu mel ne lu toll ne projet pavage bii man dama jàpp ne boo ñëwee indi ko am na noo xamante ne ni noonu nga war a mën a doxalee. moom mooy d' abord mu ñëw gisee les chefs de quartier yi nga xamante ne ni ñoom ñoo fi dëkk mu wax leen man kat dama am don ci li ma dégg ci ñenn ñi di expliquer te dama leen ko bëgg a may d' abord bu ñëwee déglu askan wi ndax tey. un maire pour da euh, dajale quartier yomb na tey bu jaaree ci penc ba gis la chef de quartier bu toogee des déglu askan wi dinañ ko wax lu leer man dégg naa ci ay kàddu ñu naan don la dégg naa ci yeneen kàddu tamit ñuy wax ne def na ci un milliard huit cent wax li c'est dafa ute finalement doo comprendre lan moo ci am dégg naa également ay conseils municipaux ñu ne lii jaarul sax conseil ba. donc wax ji ci boppam moo bari te moo ute ñun nag liñ koy wax moom mooy doo ñëw nga ne tey ma may nit ñi par la force te déjà ñun ñëpp. lu ñu yàgg xaar moom mooy projet 2 bi parce que dig nañ ñu fi ay canalisation te yàggatul 2025 bii la yaa xayti mën nañ xaar li des bareetul nañ ñu may ñu xaar ba mille vingt cinq canalisation ñëw ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm fii bu tawee dëkk bi yëpp dafay inondé ba ngeen ñëw gisal seen bopp booleen leen avancé si kanam di ngeen gis ne dëkk bi yëpp ndox la fii yëpp ndox la déjà ñun suñu dëkkuwaay yi ku bëgg a tuur ndox buñ defee pavage yi da ngay am jafe-jafe pour sotti ndox way laa boo sottee day ñëw dal ci këru nit. loolu moom mooy coow li xaw ma daf ko bëgg a politiquer xaw ma mais ñun ñu ngi fi wax en tant que habitant wu kër Aladji Pathé lii mu bëgg a def fii du antu te du sotti ñun nag dañ koy ñaan mu dellu ginnaaw di lancer un appel nag ki nga xamante ne ni moom mooy suñu leader ñun ñëpp muy Ousmane Sonko. di ko wax ne lii nga xamante ne ni Bilal jaata bëgg na koo def fii ci kër Alaaji Paate ànduñu ci d'accorduñ ci na ci dellu ginnaaw sinon nag ñëpp dinañ jug dinañ jàmbaarloo ak moom boobu ba léegi ñu ngi alerte te gis nañ ne mu ngi continuer les travaux d'accorduñ ci ñun projet 2 la ñuy xaar te incha allah 2025 bii la ñuy wax dina tàmbali. na yéen kàddu ngay bon balaa may motali kaddu rek damay dama leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm ndax yoon bi metti na lool te ñàkkante ngeen ko jaayante ko ba ñëw egg si fii nii bon balaa may wax suñu problème damay présenté wu rek El Hadj Touré laa tuddu dëkk fii kër El Hadj Paté euh, depuis 2009 maa ngi fii voilà mi ngi noonu. am na yenn yi ma si yi ma siy sànni euh, sama gaa yi wax nañ lépp man dama assister réunion avant pavage bi di egg si fii nii di ñëw. bi ñu ak ak monsieur le maire dafa toog fii garage si mbaar bi su su su su déggee mbaar bi dina xam fi mu toogoon waxoo bi ñu toogee mbaar bi mu ni dinaa leen may dinaa leen dinaa leen defal tali pavage gars yi tàccu ñu ni ko canalisation mu ni moom si boppam mu ni la premier ministre Ousmane Sonko mi ngi may déglu président mi ngi may déglu dinaa fa dem dinaa jéem a indi canal def ba ñoom dañ def canal ma def pavage d'accord ñu toog lu yàgg gisuñu ñu teg pavage yi man la ma si métti rek mooy def see wax ñetti type de wax yu bokkul première bi pavage bi di wàcc dafa taxaw ni def na si 484 millions vidéo yi mi ngi si ñuy téléphone mu tourné waat ñu dem sous préfecture mun def na si 1 milliard 800 ma jàpp ni 1 milliard 800 si projet bu toll nii soo koy def 1 kilomètre presque 2 kilomètres war na mën a def kanaal ba pare def pavage. projet bu waaw mu nekk projet boo xam ni projet bu rentable la doon ba pare jural njeexital askan bi ñun pour Kër Alaaji suñu problème du du pavage. problème mu canalisation la ñu am ndax Alaaji Paate depuis 2013 ba léegi 2012 2013 ba léegi ñu ngi dund say inondation mu nekk inondation yi métti ñu koy jaayante ba toll fii projet bi 2 war a dugg si 2025 kon loolu ñun xaar moo ñu gënal mu defal ñu pavage bii d' abord toog na nag ni dañ ay politiciens déguisé lañu ñu nekk dafa am ñu nekk suñuy ginnaaw. la moo indi seen bras le maire. ak euh, habitants yi nga xam te ne ñoom ñoo monsieur le maire canalisation ngeen bëgg moo tax mu bëgg leen forcer pavage. monsieur le maire amuñu moom benn xaarma yàlla ak benn problème. Hmm. amuñu moom benn problème. Hmm. li ñu amal problème mooy lii mu bëgg def kër Alaaji Paate te ànduñu si. moo tax mu bëgg leen forcer euh, pavage yi te yéen àndoo leen ci. déggoo déggoo li ma la wax hmm. euh, du ma tudd benn tur wala may wax benn groupe di tooñ mais dama ni lii nii li si laxasu ñun xamuñu ko projet 2 cinq mi ngi war a ñëw ñoo am éco yi. bindi le premier Ousmane Sonko mu répondre ñu kon lan lay yàkkamti si lii li nekk si ginnaaw projet bi dañu xamul déggoo ma la dafa wax na si ñetti type de wax yu bokkul. la nga jàpp ni moo nekk si ginnaaw. non man xaw ma lu ne si ginnaaw ndax boo toogee yow nga nekk kilifa première bi nga ni dañ ma àll machine may ma pavage pavage bi di wàcc ñu jël la nga ni def naa si un milliard euh, astafurlah 484 millions ñu am ak yow xale yi ñëw fi taxaw liggéey bi na arrêté ndax lii bëgguñu ko waa Alaaji Paate génn taxaw wax loolu nga dem. ñu dem ak yow sous préfecture bi ñu fa demee nga ni def nga si projet bi un milliard huit cent en fait doo comprendre lan la quoi tamit te da nga ne projet bi 484 millions nga si def sa vidéo première vidéo nga tourné waat defaat vidéo waa dem sous préfecture wax ni projet bi def nga si un milliard huit cent ñu jàpp ni un milliard huit cent war na mën a pavé fii canaliser ko te ñun projet bi la ñu bëgg moom la ñuy xaar pour ñu génn si inondation carrément ndax li ñuy dund dafa metti depuis 2012 2013 ba tey ñu ngi dund inondation Kër di wax ni rek ñi ngi comme ni ko suñu grand bi waxee Babacar ñi ngi tàllal loxo Ousmane Sonko la premier ministre moom mi nga xam ni tey kër Alaaji Paate bind nañ ko yóbbul ko mu répondre leen ñu ngi koy tàllal loxo di ko wax lii ne ko Bilal jaata arrêté ñun canalisation lañ bëgg ak pavage di wax président Diomaye nañu ñu ngi koy tàllal loxo di ko ñaan ñu arrêté lii ndax liggéey bii ni bu continuer baaxul si kër Alaaji Paate ndax ndox boo amul foo tuur ndox tey par exemple borom yi bu ñu fóotee war seen ndox lañ koy tuur dañ koy tuur si tali bi muy wàcc loolu amul sens bu ñu inondé war a war a war a manq gars yi tàllal seen taux yi si kaw tali bi dañuy tàllal di di di sotti ndoxu taw yi. day yokk inondation nañu ñu arrêté lii nii ñun bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg du ke du ñu ay politiciens ay dañoo dëkk si dëkk bi ba pare nekk si dëkk bi ñun kenn nekkul suñu ginnaaw chaque jour que jafe ñu ngi koy dégg si ay vidéo mu koy wax. pour ñu pour pour Sénégal yëpp xam ne ñii fi taxaw di wax wallahi azim kenn du si politique kenn nekku si si ay cadre politique loolu laa moon li may wax di jégalu bu baax a baax